waaw waaw sëti yónneen gërëm naa la sa baay maali gërëm naa la ay borom bi bi max naa leeru yonent bi ak leeru cheikh nii la ñu def xam nga tur bi cheikh fii cheikh tur bi mu am fii la am fële te pourtant yonent bi tur bi mu am fii amu ko fële yàlla rek a fi nekkoon tudd ahad xaawu axad ga moo def tajalliyaat mim juddu ci xaqiqatul ahmad ya génn cheikhuna tijan wa kafa alqiyaasu daiman nuqda bihi nuqda bihi في salitina الروحاني نعم القياس سالكين الى المنى ويقفهم حفظ لدى الاركان سيغ بابكر كو وخت دو وخت تياخات سيغ بابكر نينا شيخ بيمو خامي ne moo doon yonent bi képp ku ma amoon da laa bàyyi جوهر الإنسان فإليك يا